de le faire en, en commission et vous encourager. Nous y reviendrons certainement si le temps nous le permet. Monsieur le ministre, au-delà du contexte du Covid, euh, de la Covid, on dit, paraît-il, le secteur du tourisme souffre de la faiblesse de l'offre. On a trop misé, monsieur le ministre, jusque-là, que sur le balnéaire. Que compte faire concrètement votre département pour la diversification de notre offre touristique notamment en direction de l'écotourisme et du tourisme religieux. Monsieur le ministre, il y a aussi le tourisme local. Le village de Tietou, qui est dans le département de Bambay, abrite, euh, le département de Bambay abrite le village de Tietou. Et ce village reçoit, parce que c'est là où repose le grand savant Cheikh Ante Diop, beaucoup de touristes malgré l'état défectueux euh, de la route. Euh, monsieur le ministre, pour le tourisme religieux aussi, je pense que le Magal a don, nous a donné à cet enseignement, surtout par rapport au contexte de la Covid. ma bëggoon monsieur le ministre ñu dellu ci suñu bopp parce que Covid bi ci enseignement wu Covid bi wax nañ ko bi ministre de la santé ñëwee lim ñu enseigné mooy nañu nañu enseignement yi ñu ci tiire mooy nañu conté ci suñu bopp d'abord nañu conté ci suñu bopp te ñun am nañ lu ñu jaay. am nañ lu ñu jaay am nañ ay destination yoo xam ne dëgg la nit ñi dañ fay dem ngir yaakaar ngir seen foi ngir seen gëm-gëm mais ay destination la yoo xam ne tam dañu chargé d'histoire yoo xam ni mën nañ ko jaay te bu doon sama sago nga nekk interface entre destination yooyu ak sa gouvernement parce que am na ci yoo xam ne dafay ñàkk commodité am na ci yoo xam ni dafay inaccessible am na ci yoo xam ne pour dem fa bu mel ni ceytu bii ma lay wax nga xam ne Cheikh Anta nga fa tous les intellectuels du monde dañuy converger vers ceytu yoon bi baaxul ñu ngi koy defar mais nag posé na problème mu bëggoon nga taxaw ci loolu bu ko defee ñun ñu am suñu tourisme local parce que bare na boo muy Bawol muy région bu nekk am nañ fa ay clé bu ci au delà de Tivaouane Touba Alwaar Ndiassane ba am na ay barab yoo xam ne ak euh, Kër Baay am na barab yoo xam ne dafa am histoire boppam boo xam ne mën nañ ko mën nañ ko jaay ci ci ci tourisme ma bëggoon ñu diversifier ak euh, bañ bañ rek euh, miser ci tourisme plage yi parce que tourisme plage yi ministre ministre tourisme du toog may wax li ma ci xalaat mais man je suis famille donc am na lu ma ci xalaat mais yaakaar naa ne bu ñu développé tourisme bi gën a sensibiliser nit ñi Sénégal aussi sénégalais yi gën a xam véritablement site yi nga xam ne mën nañ fa dem site yi nga xam ne mën nañ dafay parfois day nekk barkeelu parfois day nekk pèlerinage mais nañ ko boole rek ci tourisme monsieur le ministre nag ñu di la encouragé parce que ñeneen wax nañ ko ñooñu bu ko waxoon parce que yéen bokk majorité loolu wax dëgg yàlla Euh, dañ naan leen rek yéen la ci seen biir mais man mës naa la ko wax fii defe naa féerig laay gisanteeg yow mais li ma seetlu mais ma boo ñëwee en mission muy Touba wala muy benn cérémonie religieuse député bu fa nekk mais cher collègues daf lay jox sa cër te le plus souvent bu bokkul boo bokkul ci délégation mën na laa ignorer mais ñun dañuy dem pour suñu soxla bopp xam ne it am nañ fa cër mais du tee danga ñuy jox suñu cër kon boo ñëwee ñuy voter sa budget man dama lay féliciter ñaanal la yàlla mais reconnaître te monsieur le président ni ku xàmmee député assemblée nationale la te ku leen mën a jox cër la ku mën a jox cër nit la man nag fii rek laay dajeek moom mais nag ñun ñu ngi yore suñu bët di seetlu te am na loo xam ne bu ko nit ba defee aussi dañ ko koy wax parce que boo defoon leneen dañ koy wax donc dañuy am honnêteté wu li nga def ñu wax la ko je vous remercie. je vous remercie chers collègues la parole est à notre collègue Awa Niang le président du règlement intérieur de l'Assemblée nationale depuis longtemps. donc félicitation euh, félicitations à le ministre du tourisme du transport li ñëpp wax rek laay wax waaye nag saar nga sant yaru nga dal nga tey nga soo bindoo woon ne tama it nag ñu tëggale ne tama mosuma laa dégg sama góor gi national nga wax ci moom dara kon jërëjëf rang boobu ngeen toog mën na leen a jox une mention spéciale ci discipline yéen ñett ñii Sénégal gépp naw nañ leen yéen a ngi liggéey te boolewu leen ci wax mais monsieur le ministre damaa bëgg a xam quand est-ce que l'inauguration de l'hôtel Pointe Sarène qui était prévu en 2020 et sachant que l'année tire à sa fin wala dañ koy reporter boobu ba 2021 monsieur le ministre Sar Bandam les acteurs de la scène valeur du département de Mbour vous remercient vous encourage pour la nouvelle considération que euh, pour la nouvelle considération prise en compte ci li nga leen di jàpp li nga jàppe comme ni ñëpp wax ak ni nga leen di eh, wax conseiller pour ñu doon des des euh, pour ñu doon des pour ñu doon des entrepreneurs je veux dire les acteurs de la chaîne de valeur vous remercient du département de Bourg vous remercie pour la considération de cette nouvelle prise en charge de cette nouvelle prise en charge des acteurs qui sont là depuis des années et également pour le conseil pour qu'ils deviennent des entrepreneurs ñu ngi la ci ñu ngi la ciy gërëm di la sant monsieur le ministre la gouvernance touristique pose problème avec des obstacles qui frein le développement. Je crois donc il faut alléger les lourdeurs administratives et permettre aux nationaux de pouvoir bénéficier des retombées, extra... des retombées touristiques de l'Agence sénégalaise du tourisme. man nag dama fi wax toujours maa ngi koy waxaat il faut que ñu revoir les les revoir les billets boroom kër bu jógee France wala mu jóge feneen. ànd ak famille am juróomi doom wala juróom benni doom loolu metti na de ci jamono ji surtout avec la Covid 19. beneen bi j'aurais souhaité monsieur le ministre soo xamante ne à partir de vingt et une heures par mesure de sécurité parce que AIBD sore na est-ce que ñoom duñ mën di wàcc à Léopold à l'aéroport Léopold Sédar Senghor parce que toujours dañuy dégg ñu naan dañuy baare yoon week dañuy kal yoon dañuy nangam nangam beneen bi monsieur le ministre ma wax ne transit. il faut faire tout pour que transit nag vraiment ñu ñu ñu yemale ko ci mag ñi te bàyyi xale yi xam nga am sa doom jógee moom Amérique wala nga jóge moom fenn ñëw def transit fii def transit fii def sa fatigan xale yi duñ ko àttan donc maa ngi lay gërëm di la sant di la wax ne li la ñëpp wax rek di la gërëm di la sant di ñaanal nag son excellence éléphant blanc devenu réalité muy le président son excellence le président Abdoulaye Wade yàlla na gudd fan te wér ñun ñëpp yàlla nañ gudd fan te wér te fekkee def na effort bi yoon ndeysaan je vous remercie la parole monsieur le président de l'Assemblée nationale monsieur le ministre du tourisme et des transports aériens monsieur le ministre du travail en charge des relations avec les institutions monsieur le directeur général du budget chers honorables collègues chers collaborateurs des ministres asalaamaaleykum monsieur le président ñu ngi lay yeesalaat sunu fierté ci yow sunu kontante ci yow di la wax ne référence nga ci réew mi et vous faites une fierté nationale monsieur le président monsieur le ministre tey da nga ñëw pour ñu vote sa budget lii ci saal bi tey ci hémicycle bi wane na ne acteurs touristiques yépp ñi nga séqal tey li nga xam ne mooy sa ministère am nañu satisfaction ci yow ak ci président de la république firnde baa ngi nii ndax yaakaar naa ne weddi gis bokk ci te liggéey rek moo wóor te liggéey lañ leen sant te loolu ngay def yaag say collaborateur kon jërëjëf monsieur le ministre jërëjëf son excellence le président Macky Sall taxawaay bi ci wetu acteurs yi rafetlu nañ ko yaakaar naa ne tey ñii yëkkati kàddu amul kenn koo xam ne dëkk nga foo xam ne mën nañu wax ne dëkku tourisme la ñun nag ñi yor kàddu gi tey dañoo jóge fële ca Mbour ñu ne Mbour ne la Petite Côte monsieur le ministre acteurs yi nga xam ne ñoo nekk dans le département de Mbour sur la Petite Côte jàppee ko Fadial Joal Somone Mbour gi ma dëkk monsieur le ministre ñaling sali ñoom ñëpp ànd nañu di wax merci monsieur le président de la république merci au ministre merci vraiment ci taxawaay bi 15 milliards yi nga xam ne crédit hôtelier la ak crédit touristique yaakaar naa ne sama collègue yu bari wax nañ ko mooy guide yi gis nañ seen bopp artisan yi gis nañ seen bopp pirogué yi gis nañ seen bopp vendeur d'objets d'art yi gis nañu seen bopp monsieur le ministre agence yi restaurant yi 15 milliards yooyu yëpp da ngeen ko jël jàppale leen parce que mbas mi fi jaar kon monsieur le ministre jërëjëf la ñuy wax naam doléance am na daañu ci ñëwaat mais li am solo mooy xam nga liñ la dénk président am na ci une vision net te yaa ngi koy doxal yaak ñi nga àndal kon ñu ngi leen di gërëmaat di leen santaat di profiter aussi monsieur le ministre di la dénk une sœur honorable Binta Mbaye Seck wax na ko muy la directrice régionale madame Camara Néné Daaf ñu ngi la koy dénk bu baax di rafetlu liggéeyam monsieur le ministre di nuyu suñu frère muy Alioune Gningue nga xam ne moom nga dénk crédit crédit hôtelier bi ñu koy sargal di ko ñaanal monsieur le ministre di nuyu suñu ay frères yoo àndal muy Pape Mao Doudou ak le DG de la ko monsieur le ministre pour la rénovation urbaine de Saly fan nga ci toll beneen bi mooy monsieur le ministre par rapport ak SAPCO sur la Petite cote xam nañ ne mbuur ak li ko wër yëpp tourisme la ñuy dunde ak pêche covid bi laal na leen ngeen ñëw jàppale leen mais monsieur le ministre dama bëgg a wax ne hôtel mënoo ñëw am client bi boo jaayee client bi lekk jaay ko naan ngala li nga xam ne moom mooy souvenir bi nañ ko bàyyee ñi nga xam ne mooy antiquaire yi ne ci biti hôtel bi mënul jël lépp il faut que yeneen acteurs yi aussi bi ci gis seen bopp loolu moo tax ma lay ñaan ñi nga xam ne ñoo nekk ay antiquaire ci plage bi waa ko jàppale leen ñu am foofu ay boutique parce que loolu dina tax ñoom it ñu am euh, euh, ñu am lu ñuy gañe ci foofu nga xamante ne fa la ñu nekk di fa daan son doole yaakaar naa ne sama frère Alioune Sow dina dégg loolu ba tax na it ñu koy ñaanaat mu wàññiwaat vraiment mesure yi muy jël ci ñi nga xam ne ñoo nekk foofu même bu ñu nekkul en en réglementation loolu moo tax monsieur le ministre foofu laay ñëwee pour wax la ne la réglementation secteur bi gis naa sa rapport nga ne yéen a ngi ci loolu aussi fu ngeen ci toll e ñu renforcer waat bu baax li nga xam ne mooy sécurité ci euh, site touristique yi li ci am solo daal te am ba am mooy jàppal na secteur bi nga yor tey acteurs yi am nañ ci satisfaction 100 pour cent loolu mooy dëgg parce que bi fi mbas mi jaaree ku nekk gis na ne ah, ah, secteur bu nekk yuuxu nañu mais secteur tey tourisme touristique président de la république def na ci lu ci kenn mësta def te loolu mooy dëgg ku ko bëgg moo am ku ko bëggul moo am leneen lu ci amoon it danañ taxaw défendre les acteurs défendre la gouvernement mais ku liggéey danga ko naan jërëjëf kon jërëjëf et bon vent